Euh, bien vrai que ba ñuy liggéey ak Aïda Sow Diawara daf ñoo joxoon lépp luy culture bi te yaakaar naa ne am na ci satisfaction ndax kontaan na ci liggéey bi nga xam ne dénkoon nañu ko en tant que responsable culturel de la commune Golf et directeur adjoint du foyer socio-culturel de la commune donc du coup côté culture bi kenn du ko naatable fii ci commune Golf ndax réinsertion yi ñu fi def ak euh, acteurs culturels yi nga xam ne ne euh, ñii produire nañ leen ñii ñi ngi doon def seen spectacle ñii ñi ngi doon def seen événementiel au niveau au niveau du foyer donc du coup déclaration bi dafa nekk déclaration boo xam ne dañ ko koy nangul ndax moom euh, mag tàggatum politique politicien la. xamna bu baax a baax limuy def donc té ñom dañu nekk ci benn parti bu tuddu Benno Bokk Yaakaar donc jikko dafa am benn discipline de parti bo xamné ñom dañ ko wara respecter donc lu ñuy mën def moy nangul ko ci limu wax né Macky Sall président Macky Sall wax na pour mu euh élection yi di ñew ñu jital sen candidat ba and ci décision mais nag néanmoins nous nous sommes des euh, nous sommes apolitiques bokkuñu ci benn parti amuñu discipline de parti amuñu loo xam ne loi tënk nangu jóg ci wàllum culture ñun lu ñu bëgg mooy développement culture commune golf bi nga xam ne maire def na ko ba alhamdulilah acteurs culturels yi plus de trois cent soixante acteurs culturels yi nga xam ne base de données bi gis nañ ci seen bopp ñii voyagé nañ ñii am nañ ay inscription ñii dem nañ ci tukki dem ñëwaat ñii ñi ngi demoon def seen festival donc di ko keneen ku fi ñëw rek mu collaborer ak liggéey bi nga xam ne Aïda Sow Diawara bàyyi fi ci muy liggéey bu pertinent muy liggéey bu jekk tey les images parlent d'eux-mêmes ku dem foyer socio socioculturel commune bi di nga xam ku ñëw tamit ci responsable culture culture bi nu muy doxee au niveau de la commune di nga xam donc keneen ku fi ñëw rek mu respecter ba pare collaborer ak ñi nga xam ne ñooy acteurs culturels yi parce que les hommes passent les instituts les ah, waaw les instituts demeurent les hommes passent keneen ku fi ñëwaat tamit da ngay dem ñu ni tamit li ñu nekk yàlla daf ñoo nattoo culture mais tamit dañuy ñëw ñeneen dem waaw frustration xam nga frustration mënul ñàkk ci lépp looy gis tey jii ba ci ñoom sax dina am frustration kooku seen normal ba ci seen listu conseil sax ku ci déggul turam sax mun na jàpp ne dara kii na wala mais loolu politique la xam nga politique moo nekk loo xam ne bon man terrain boobu miinuma ko bu baax mais lu jàngat bi ñu ciy jàngat rek mooy que ñoom seen i biir dañuy xool ay pion yoo xam ne bon gis nañ ne mooy meilleur profil bi par rapport ak ci bu ko téyee mu dem bu ko téyewul du dem wala affaire demee noonu donc du coup côté boobu noonu man dama ci dama ci dama ci dama ci dama ci loolu dama ci dama ciy wax loo xam ne ne carrément que ñoom seen biir daal en tout cas xamante nañ ci terrain politique ba mais néanmoins li ma ci mën a wax bu mën ci wax mooy déclaration madame la maire c'est très important parce que grandeur weesuwul li mu def am discipline de parti parce que maire je suis apolitique donc je suis bien placé pour voir discipline de parti bi nga xamné ne pendant un an deux ans deful mobilisation deful dara waxul kaay leen waxul partem bi kaay la ñu def lii waxul partem bi la ñu def nangam ak sangam toujours moom mi ngi toog di déglu Macky Sall président Macky Sall ñu dem ba dernière minute ñu ne ko bàyyi sagesse boobu noonu vrai politicien moom bu doon góor dama naan vrai gentleman mais vrai woman nañu noonu parce que amaan na ñoo xam ne bu doon loola parce que nguur dafa neex amaana bu doon loolu mun nañu xëccoo daw génn kër mais toujours mi nga am discipline de parti chaque jour mu ne ay militantam toog leen ngeen déglu toog leen ngeen xaar te boobu la kenn déggul Aïda Sow teg Aïda Sow Diawara je défie quiconque kenn ëpp ko nit ci commune bi kenn ëpp ko mobili bu mobilisé woon tey jii fii nii ñëpp dañ xam ne Aïda Sow Diawara woote na mosoo leen dégg acteur culturel yi kaas ko mosoo leen dégg côté culture bi ñi ñi ŋàññ ko c'est parce que day uuf njaboote ñëpp te elle est accessible elle n'est pas une mère fantôme boo xam ne doo ko gis ku dem bureau tey ji fekk ko fa donc loolu yëpp dañ ko koy seedal léegi nag bu ñëwee na ba def déclaration moom li mu waxante ak Macky Sall moo ko xam c'était à huis clos donc bu paree ci loolu ne moom bàyyi na entre politiciens ñoom ñu jiital que ñu war a jiital dañuy saluer dañuy saluer euh, initiative bi. Lat Diop euh, ci luñ koy woo euh, bu fekkee ne moom lañ jiital ci liñ koy woo mooy mu am esprit de esprit d'ouverture ak esprit de partage c'est très important parce que affaire yi du nguur Macky Sall fi mu nekk dafay jóge te yiw bu rafet dafa am solo Et on a confiance un peu bu fekkee ne moom man tel que nu ma ko xamee nit la boo xam ne nitu principe la nitu valeur la parce que j'ai eu à travailler avec lui xam naa ko nit bu mais lu ñu koy gën a soññ que moi, am esprit de esprit de collaboration c'est très important nga am esprit d'ouverture Voler, li fi nekk nga gën yokkaat plus lu baaxul woon nga yokk li baax nga gën kaa defar